العين وعينك واسع
ba na nga xam ni ñun suñuy kilifa li ñu wax yëpp wax nañu ko ba noppi xanaa kay ñàkk ko njàng ak ñàkk a seet la sa sëriñ wax rek moo fi ne waaye ñun suñuy sëriñ dañoo jàng mën a jàng jaamu yàlla ba egg ci yàlla nga xam ne loo góorgóorlu doo leen dab waaye sëriñ boo xam ne boo dee ñaadam ñaadam jiitu ko mu jàpp say mbagg dafa ne da nga koy jiitu ëpp naa ëpp naa roy de waaw sëriñ boo xam boo nee ñaarim ñaarim dañ ñu kanamam te mooy bëgg nga dem ci sa kanam te moom it fas yéenee dox waaye ci sëñ bi ku ñu yor day seetu ginnaaw borom dayoo ya koo xam ne kii loo góorgóorlu doo ko dam te loo góorgóorlu xeeb la ko loo boo boo boo yéegee ba sonn mu toj la koo ko mën a waaye koo xam ni boo waaxoo sax raw ko te moom it bëggul nga raw ko nee na ñeent yooyu daal mooy yi nga xam ni moom ci yi gën a gaaw a dugg nit ci tariixa bi siyaaratun wa tarku wal muhaawana wal jamoo dañoo daal daanuñu ko gën a dénk lool nag kon nag nañu ko moytu bu baax gaa yooyu nga xam ne nee ñu am nañuy ndigal itam ci tariixa bi boole ko yeneen itam ne leen wóor ni dëgg tariixa si amati jaar daal kenn amu si ci am benn ndigal boo xam da koy booleeg benn wala nga di ko mayee loog benn nee na nee na kon nag képp koo xam ne kii yaa ngi yor tariixa bi na nga koy sikkar ci waxtoom waaye waxtu yu jot ngay seetaan football Paris baag bu Abidjan baag fu baag kile ba waxtu yu paase wax dëgg yàlla loolu day lu mat a moytu la nee na su fekkee ni nag da nga koo sikkar ci daruur yi ba te amuloo benn ngant itam nee na bàkkaar bu mag la nag ci tariixa bi ku ne xam na nag bàkkaar bu mag bàkkaar moom day yóbboo sawara bu la yàlla yërëmul day doge ci tariixa yi bu la yàlla yërëmul nee na ngant itam du caagi nag ngant bi yaa koy utal sa bopp ngant bi ngantub sharia lay doon niki lan nga doon nelaw ba waxtu yu jot te yeewuloo wala boo nga fàtte ko wala ji koo xam ne kii da nga diggoon ba ci waxtu yi nga faf gis reegal wala nga wasit jë wala nga dof ca wala nga feebar ca yii mooy ngant sharia yi waaye ngant moom kenn du ko utal sa bopp mooy fanweereel ba nee na ñeent fanweer ba benn moo di su fekkee ne da ngaa nekk ci jàkka di werd masalan nga doon werd tàkkusaan foofu timis jot ñu taxawal nee na téyel sa kurus nga dem ànd ak mbooloo mi boo julee ba noppi bala ngaa def baaxaar saaliyaat nag da ngay werd da ngay eggale sa werd ba noppi soog a def nag baaxaar saaliyaat nag nee na su fekkee ni. nee na su fekkee da nga doon jiital sa wet nag ci fajar nee na faf nag fajar jot nee na na nga eggale wedd woowee te nga baamu ko moom la seen góor bu baax gi di wax ni wa in bada xabla faraaxikal fajar fattamiman wa aidan wala tajur nee na su fekkee ni da nga doon jiital sa wet ba fa fajar jot nee na na nga eggale wedd woowee nga tàmbali woon ba noppi nga baamuwaat ko nag moo tax ma ni wa in bada xabla faraaxikal fajar fa tamiman wa aidan wala tajur nee na bu fekkee weeru tàkkusaan la nag nga xam ne dangaa julli woon tàkkusaan ba noppi di weer dëkk wasifa faaf nag timis jot ñu li xaam kon ma ne da ngay téye sa per nga julli ba noppi nga eggale sa werd werd wala sa wasifa su ko defee nag doo baamu dara ndax werd wi moom yaa ngi ci waxtoom waaw lépp loo xam ne lii te mooy ñaar fukki fanweer ba ak ñeent dina yàq julli nag dina yàq werd mooy njàpp mu tëj ak reetaan ak dégg nga maam yépp loo xam ne daal soo doon julli soo ko defee mu yàqu na nga werd xam ne soo doon werd soo ko defee yàqu na naka noonu boo dee lépp loo xam ne boo ko defoon ci julli mu yàqu sooy wasifa soo ko defee mu yàqu waaw nee na bu fekkee da nga toog ba yàgg nga ni sikki sàkka ndax werdu naa wala werdu ma nee na kon jàppal ni werdu nga werdaat waaw nee na su fekkee ni mooy fanweer ba ak ñeent da ngay werd ba yàgg nga sikki sàkka ndax waaw man wax naa téeméeri astaxfirullah wala waxuma ko wala sama laa ilaaha illallaa mat da wala matul wala sama salaatu ala nabi wat na wala watul nee na bànnaa alal yaqiini comme julli ga rek soo doon julli yaa sikki sàkka ndax ñaar rakka laa am wala ñetti laa am bànnaa alal yaqiini da ngay jàpp ni ñaar doo nga am ndax mooy loolu mooy li wér bu ko defee nga dem ba yeneen rakkaaya si jóot na baada salaam naka noonu su fekkee da ngay werd ba yàgg nga naa waa man juróom-ñett fukk laa wax wala juróom-ñeent fukk wala téeméer laa wax wala fanweer jàppandi fanweer nga wax am nga daal di indi la ca des soo noppee nga wax astafurlaa téeméer waaw fanweer ba ak juróom-ñaar koo xam ne gi da ngay ne da ngay werd ba yàgg sa kër sa bur di pënd nga waaw kon nag léegi su fekkee ni ni nga katam sa kurus da ngay seet fa nga xam ni wóor na la ni bëgg a nelawugul de moom egg nga fa nga dale foofa soo noppee wax téeméer astafurlaa njëgam nelaw yow oyof na waaw nee na su fekkee nag nelaw ya dafa diis nag nee na te mooy fanweer lool ba ak juróom-ñaar juróom-ñett nee na kon njàpp ma toñ na da ngay baamu njàpp ma baamuwaat werd wa nag waaw ni ki ko doon julli ba yàgg nga di këpp daanu ah kon nag nelaw ya diis na non seulement da ngay julliwaat waaye da ngay baamuwaat njàpp ma nee na su fekkee ne dangaa sikki sàkka ndax nelaw yi diis na wala woyof na nee na ba tey kon yàqu na demal rek a jàppiwaat ba naa la yaqini rek naka noonu itam ci wasifa moo wedd waayam ci loolu rek boo doon wasifa nelaw it na nga doon def ci wedd wa noonu ngay def nee na lu dul loo xam ne ni nag ilimaan yenu na ko xam nga bu dee am na sunna yoo xam ne ci julli ilimaan moom yenu na ko naka noonu am na yoo xam ne ci werd ilimaan dina ko yenu lu dul nag ci lim ilimaan nag du yenu lim ci werd du ko leen yenu ci du yenu lim ci wasifa ni ngi masalan su fekkee da nga doon wasifa ni gàmm ba ñetti per raw la te yaa ngi ci wasifa mbooloo mi ñetti per yooyu nag ilimaan du ko yenu ndax loolu ponk la moo tax farata la te farata ilimaan du ko yenu kon nag ana nooy def léegi ñetti per yooyu masalan nga defoon ñaar fukki per fanweer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ni gàmm ba nga yeewoo nga daal di gis ni kat gaay kat am nañu fanweeri per léegi te yow yaa ngi wut ci ñaar fukk ak juróom-ñaar masalan kon ni ngay def mooy da ngay wax ci suuf daal di leen di dab continuer ànd ak ñoom moo tax lépp loo xam ne danga koo bàyyi ci wasifa ci ab lim ilimaan nag du ko yenu nee na kon nag moo tax wa man sakata wa faatalu habatun minha istadrakaha sirran wala yaxawm laa yaxmilu al imaamu li anna ruknun nee na képp koo wala boog léegi da nga da nga noppi woon wala nga am loolu def ba perraw la da nga koy jàng waaye ilimaan du la ko yenul nee na nag nee na ilimaan fii ci wasifa nag jubluwuñu ci kii ubbi wasifa wi ñi ngi ci jublu martaba Seydi Ahmed Tijaani radiyallahu taala anhu ndax ilimaan jooju sax bu nelawoon moom te moom ma te moo war a yenu yëf yi kon lu koy mottali nag loolu moo tax fii li ñu ci jublu moo di géew wasifa bi yépp moo remplacé martaba Seydi Ahmed Tijaani nee na noo mooy mooy yenu yi nga xam ne du farata ci biir su ci faatee dara yëgu ci waaw nee na nag ki nga xam ni nag mooy ubbi wasifa bi bëgg nañu mu nekk na nekk ko jàpp masalan su fekkente wane dafa am koo xam ne bii day tiim te nekk ci géew wasifa bi bëgguñu mu ubbi wasifa bi dañoo bëgg mu bàyyi ko ki nga xam ne jàpp na jàpp mat mu ubbi ko nee na bëgg nañu ki ubbi wasifa bi itam bu fekkee borom xam-xam bu wér a ngi ci tey mu xaddam na ko mu xaddam boobee tey borom xam-xam ubbi su fekkee ñëpp ay borom xam-xam lañu ki ci mag na ko na ko ubbi te gën cee sàmm. nee na naka noonu itam bëgg nañu bu ñuy lekk te boroom xam-xam nekk fi tey nit ku baax koo kee na jëkk a ubbi lekk ga waaw su fekkee mag di kii na mag ma jiite waaw ndax nee na ba lislaam bi jaaw ci lislaam lu yàlla réyal la ndax yàlla sax da ko rus nee ku yàlla rus nag kon ñëpp war nañu ko rus te nee na fa tasimu man asamahu laahu sunnatun te képp koo xam ne yàlla màggal na la ci lislaam màggal la sunna la waaw nee na su fekkee ñu ngi ubbi itam te borom kër ga nekk fa nee na moo gën a yelloo ubbi wasifa wa nee na bu ñu julit moo gën a yelloo jiite ko suñu ubbi it moo gën a yelloo ubbi ko feek nag buur nekku fa su fekkee buur nekk fa na nekk na ka nag tey mu xàddam nee na buur boobee mu xàddam nag moo ko war a ubbi naka nga xam ne bu fa nekkoon tey jindi moo war a la jiite nee na su fekkee ne pal yooyu dañoo daje nag nee na na boroom kër ga jiite comme na mu nekkee woon ci julli nee na su fekkee ni nag dangaa dem ci gii wasifa te am na koo xam ne kii toujours moom la ñu baaxoo naan ubbil wasifa bi kookee moo war a ubbi wasifa waaye waroon ne parax dinaa ki bisimilah nee na bu ñuy ubbi wasifa it bëgg nañu ñu jiital ka nga xam ni moo gën a mage te gën a am lislaam te gën a am xam-xam nee na bu fekkee noppi nañu bay ñaan itam bëgg nañu kenn ku nekk yéene aajoom ci ñaan gi ñu ñaanandoo ko benn yoon ndax jàngal kii faatee jàngal kii faatee jàngal kee faatee day yàqali jàpp moo tax Seydi Ahmad Tijaani takraarul faatihati muqinun lil ijaabati li anna faatihat waaye data takfi ala samawaati wal ard nee na baamu faate bi day yàqali jaaba ndax benn faate doy na soxla doy na soxla ñi dëkke kaw ak ñi dëkke asamaan waaw nee na baamu faate te faatihat kitaab bi niyetil ismi am na ñu koy jàng fukki yoon ñii fukki yoon ak benn ñii téeméer am na ñoo xam ne sax dinañu ko jàng junni waaw kon nag ana naka la naka la ak la loolu naka la demee kon ginnaaw baamu ko day yàqali jaaba wi te faatil kitaab bi ne di ismi kenn ku nekk ak sa dog ba ñu la ca jox te ku ku jàng koy faati téeméer yoon baamu nga ko ana kon naka la demee mooy ni mu demee moo di sëñ Omar mi am aajo ni ñu jàngal ko faatiha sëñ Asan mi am faati soxla ñu jàngalaat ko faatiha kee amaat soxla ñu jàngal ko faatiha ci benn jitaay soxla yu bari yu kenn ku nekk sa faatiha di yàqali jaaba bi dañoo bëgg ñu boole fa soxla yépp jàng ci benn faatee rek waaw nee na nee na juróom fukkeel ba ak benn bëgg nañu nga ut course bu baax gu rafet gu laab te bañ caa def takalluf nag di lu ne nga dugal ko ca fu ñu génn nga wën génne kurus ga wane ni yow sa kurus gi nii la mel nii la seere nangam nangam loolu bëgguñu te kurus gi bëgguñu nga rax ci dara lu bokkul ci kurus gi comme ni mag ñi daan def jël sa sa mungaas def ci kurus géeg say caabi yëpp nga nas ko ci kurus géeg loo jot rek denc ba kurus gi mel ni kalpe loolu nag bëgguñu ko kurus gi daal dañoo bëgg muy kurus donc lu mu rafet rafet nag baax na waaye bu ci def benn takaluf nag Seydaañ maa ngi ne lay sa tasi yu subatin yoo tabaru bali tibaaw maa su yoo axbaru nee na rafet kurus du li ñu sa taamu li ñu taamu moo di li sëriñ si wax ni nañu ko def ci kurus rek nga def ko ci kurus su fekkee yaa ngi ko jiite ba noppi mu ànd ak rafet nag kon nag baax na waaw nee na nag juróom fukkeel ba ak ñaar te defar nañ ci benn bànd ci moo di nit yàlla yu baax yi seen jëfandiku waaye yéen ñi doon jëfandikoo nga jël ko pour barkeelu ca loolu lu baax la lu ñu soppale te dara nekku ci te bokkul ak bokkaale ak yàlla dara waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn bés muy yable ndabi midina yépp ñu layaxe ko ak si daan jàppeeg seen yépp ñi dajale ko ba mu nekk mel ndox yonent bi naan ko di wucca te yonent bi ci moom lañu séentoo barke kon nag njëgam yonent bi mooy naan ci naan yi ci jullit yi gën ci keneen ku dul yonent bi nee na bu fekkee ni yaa ngi werd itam nee na nanga ko def tartiiban tabiiyan maanaam baat yi li ci war a xëcc nanga ko xëcc li ci warul xëcc bul ko xëcc sàdd yi na ñëw mbijaan yi na ñëw te bul di parax paraxi ba nga xamee ni bii da ngay dog baat yi ak di wan baat yi ak di wan leesar yi ndax araf boo gis dafa mel ni dafa araf boo baat boo gis araf bu ci nekk benn rawxaan moo ca tegu benn malaaka moo ko yor te leer ba ci nekk itam moo koy liggéey su fekkee dagg nga araf ba wala dagg nga baat ba loolee nga xam ni mooy liggéeyam moom araf ba dootu ca nekk te kon doo ba ba li jaaboo dootu am moo tax dañoo bëgg baat bu ne nga tudd ko ni ñu ko war a tuddee su waree xëcc nga xëcc ko su waree gàtt nga gàttal ko su waree sàdd nga sàdd ko su warul sàdd nga wayafal ko waaw nee na wa iyaaka wal israa xataa taxruju xadd sikri nee na bul gaawantu lool itam ba nga xam ni eh, bu ñu joxee bim nga daal di rek parax parax daal di wane ni yow da ngaa gaaw ci sikar daal di commencé dimbalee déedéet bala ngaa dimbali kenn na nga fexe ba dog bi ñu la nga jox ko jox ko te bari na li sax lim boo xam ne bii sëriñ da la koy jox nga dikk naan awma ci dara te fekk ne yaa ci ko deful nañu ko war a defee ndax bu ñu la nee téeméer nga gaaw nga xam ne loxo bi ak làmmañ ñu du ànd nga xam ni làmmañ ñu kay juróom-ñetti fukk la wax waaye loxo bi moom continué téeméer kon nag lim ba ñu la waxoon defuloo ko te jaabi ji nag téeméer ko bunt bi nga xam ne moom lañ la coo jaabeem téeméer koy ubbi teew juróom-ñetti fukk rek nga ne nga ci def di kare kare ñee bunt bi bi ko mu gën a kon kon nag nan fexe ba làmmañ wi ak loxo bi di ànd boo nee laa ilaha illa allahu loxo bi su ko xëcc per waaye naa laa ilaha illallah làmmañ wi jëm fële loxo bi jëm fële nga xam ni loxo lim bi ak làmmañ wi àndul boo ko defee nag na la wóoni tuddoo ko wer moo tax am na koo xam ni kii dafa mos a gént yowmal xiyaam jot ñi nit ñi def baaxee saaliyaat yëpp nañu jugg ajana naka la jóg ñu ni ko yow kon doo dugg ndax daawuloo def lim bi bu ma da nga ko da nga ko daan ëppal kon nag ëpp gi baaxul yéexal gi baaxul waaw bëgguñu itam nga di ko def ni gaa yi def nga xam ni noddkat yeeg liqaamkat yeeg ñenn ñi jàngal ko nga xam ne dañuy fekk benn baat boo xam ne bii masalan cinq centimètres la ñu xëcc ko meetar ñoom waaw loolu yëpp tariixa bi bëgg ko te itam gënalu ko boo yëkkati sa baat yi bul yuuxu ca kaw bool yàlla na nga ko diggu dóomu rek xayrul umuri awsatuha nee na su fekkee ne dangaa commencé werd te mooy juróom fukkeelu lu masala ba ak juróom su fekkee dangaa commencé werd nga jëloon salaatul faatiha nga am lu la gaar nee na dagan na salaatu faatiha boobee nga remplacé ko beneen salaatu bu gën a gàtt masalan dangaa nekkoon ku sàggan ba dem ca jumaa ji doon we- doon werd sa werdu suba faf ilimaan dikk nag di xutba te salaatu faate bi dafa gudd nee na dagan na nga remplacer salaatu faate boobu beneen salaatu bu woo xam ne bii moo gën a gàtt pour nga mën a déglu xutba bi masalan léegi nga commencé woon werd war na tukki nga ni ma gaawat balaa otodaay ñëw wala balaa saxaar ñëw wala balaa avion bee départ ba nga commencé nag nga yëg ni kat cinq minutes ci des wala ñetti minutes ci des doo ko fi man kon daga na nga remplacé ko ah nee na werd wi itam bu fekkee ne da ngaa yàq maanaami ba maanaami soppiku nee na werd woowee wérul niki masalan bari na ci ilimaan yi ñoo xam ne dañu naan anamta anamta nag dafa soppi maanaami te faatee ku ci yàq benn araf rek su julli baaxul kon nag foog nga ne an amta nga xam ne da ngay indi nuun gi ak ayin yi ba mu wér waaye boo ne anamta nga xam ne tagg nga nuun gi complètement kon sa julli baaxul ñi nga topp ci ñoom ñëpp itam seen i julli baaxul ndax faati moom laa budda min tasihiya werd wi itam noonu la mel am na ci yàq yoo xam ne soo ko yàqee werd wi ci boppam baaxatul nee na juróom fukkeel ba ak juróom ñeenteel nee na su fekkee da ngay wedd nga waxtu ngoon nga fàttali ko ni sa weddu suba kat wedduloo ko nee na kon na nga bàyyi weddu ngoon wala nga weddu sa weddu suba woowee nee na su fekkee ni da nga ko fàttaliku ci biir nag eggaleel weddu ngoon ba ba noppi nga dem jël di suba te weddu ngoon bii nag nga baamtuwaat ko nag waaw loolu nag baamtu googu nag dañu ko sopp nee na nee na su fekkee ni wa isa saraa fi wirdihi sumaftatahu li wajibati kamala wirduhu wujuban li annahu li annahu asluha nee na su fekkee ni da ngaa nekk ci jàkk di werd ñu commencé wasifa ana nooy def nee na yow moomu na nga eggale sa werd woowu te bul bàyyi werd wi di dem ci wasifa wa ndax wasifa werd wi mooy cosaan bi naka noonu su fekkee da ngaa nekk ci jàkka di werd wala ngay wasifa te ñoom amoon nañu aaday jàng fi ñaari isib te mënoo boole njàng mi werd mi ak diglu ñaari isib yi nee na kon li gën mooy nga jóg dem faneen wala nga jóg bàyyi leen te waaye nag sañoo dog werd bi waaw nee na werd ak wasifa nag soo ko bàyyee dañu koy fay faw te fay ngay dafa war faw itam su fekkee ne da ngaa dem ci ab géew wasifa nag te géew boobu miinoo seen mbir wala nga fekk ñuy defee nu bokkul nag na nga daan defee yow masalan am na ñoo xam ne ñi dañuy ubbi ko faatiha benn def astaghfirullah benn def suraat faatiha benn am ñoo xam ne dañuy ubbi ko faatiha benn astaghfirullah ñett salaat faatiha ñett soo commencé su fekkee da ngaa fekk ñuy def noonu te yow daawoo def noonu noonee nga daa def bàyyi ko te ànd ak ñoom ci seen defin woowu ndax defin yépp ci tarixa bi bu ci ne baax na waaye bul fa nekk di leen di nga tag di leen weddee naa daaw ba defe nii daawu di defe nii indi werte ci jàkka ji ci wési bul ko def loolee nga doon def baax na ñoom lii ñuy def baax na na nga bàyyi noonee nga daa def nag te ànd ak ñoom waaw nee na juróom benn fukkeelu masala ba ak ñeent mooy wasifa ci boppam astaghfirullah azimali si laa ilaha illa huwa alxayy alqayuma la ñu koy def fanweer ak salaatul faatiha juróom fukk waaye kenn du ko defee beneen salaatu ak beneen istifaar bu dul bii nee na fa man lam yaxfas salaatul faatihi saxata anhu nee ñu képp koo xam ne kii da ngay wasifa te mokkaloo salaatul faatihi nag nee ñu wasifa wa wàcc na la ba keroog nga koy mokkal na soo ko mokkalee nag doo ko fay ah masala mi bokkoon na ci masala mi nga xam ni sëñ may sa mus na koo laaj sëñ baabu ko si radiyallahu taala anhu te gaañam fa fekk xaw koo sonal lool ndax daf ko di wax ni ko dafay waxtaan mu daal di jukk sukk woom ni ko sëñ baabu ko te am naa masala mu may mu may laaj maa ngi ñi nga xam ni tubaarkàlla daal di ko commencé ko fi fi ma jóg ko kunta baaka bongoos sëñ baabu ko ni déet bu leen xeebal ginaar woppam bàyyi leen jaamur mu laaj ab laajam maa ngi di giriir mu ni ko baal ñu ba ñu noppi nga laaj sab laaj sëñ baaba ko si continuer ca waxtaan ba mu doon waxtaan ba mu noppee mu daldi ko ni ana ki doon laaj mu ni ko maa ngi nii mu daldi jóg ni ko yéen waa tarixa bi da ngeen wax ni nit su ñaanee werd ba keroog muy dee lu mu fi bàyyi war na ko werd war na ko fay ci werd wi waaw su fekkee nit dafa dikk nag di ko ñaan ko te moom mokkalagul werd wi mu commencé di jàng werd wi ba mokkal ko léegi diggante boobu nga xam ni ci la koy jàng ak diggante bi mu koy mokkal da koy fay wala du ko fay sëñ baaba ko ne ah mii masana di mesa mu xaddam yi la mu xaddam yi de waroon nañu koo laaj bu yàgg waaye kenn nu musu ko fee laaj xanaa daal dafa mel ni gone yi ak mag ñi léegi dafa mel ni coggalu xar bu ñu jiitoo di dem bu ñu wëlbatikoo ña féete woon gannaaw ñooy jiitu diine ji daal laaj ñu ko jabar jeeg place bi rek waaw waaye masal mii de mag ñi waroon nañu koo laaj mu ne ko aha loolu nag eh, téere yu bari indiwuñu ko waaye jéggale nañu ko diggante boobu nga xam ne dangaa ñaan werd wi di ko jàng te mokkaloo ko diggante boobu jéggale nañu ko ah 1000 faraaya daal di jóg nag 5000 faraaya moom comme kay ku kuntaaba woon joxe nga 1000 faraaya nga daal di gis sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu bu mu saan toog mi ngi jàkkaarloo montar bi waxtu wi bu jotee pire kenn du ko ko wax moom bokk ci sëriñ si nga xam ni seen conférence wala seen waxtaan jaral na leen waxtu wi moom bu waxtu wi jotee rek mu daal di jóg julli waxtu lu rëy ci yàlla la loo xam ne ni xeex sax ci xeexal islam sax du tax ñu bàyyi waxtu waxuma laa la neen yu ci bari nag du fonk tariixa ba du itam fonk julli ga fonk sa conférence dong la wala fonk sa mbooloo mu bañ a tas lii dong la waaye farata yàlla ji moom bu jotee amul benn ngànt buñ ci war a def loolu jóg julli ko rek nee na nag nga daal di gis nit yàlla yi ni ñu baaxee bu doon ñu bari wala muy sëriñ bu jàngul day bàyyi ñu làpp ko ba mu nooy ndax bëgg ñu laaj ko masala mu mu xamul waaye gii kuy xaayaan moom tànq ci as mbatt du ko wàññi tus te bañul ko ñu tànq itam sëriñ boo gis ñu bañ ko ko laaj wala mu ay garde yoo xam ni dañ bañ ko laaj wala ko laaj ñu diingat la sëriñ bu jàngul doo nga koy def waaw diine ji nag da waram xam-xam nañu ni laa yansur diina illa man ahaatahu ilman nee na diine kenn mënu koo dimbali te jàngoo ko waaw ñun suñu tariixa bañul ko laaj ndax Seydi Mouhamadul Xaali radiyallahu taala anhu keroog ba Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu maamu sëriñ bii toog keroog ba mu sowéenoo ba yàgg mu ne ana Seydi Mouhamadul Xaali ñëpp jokko jokkolaate ko ba mu dikk toog da ba mu jógee taxaw toog daf ko ne xaddamaaya xaataani ala raqabati kulli waliyillaahi taala daf ko ne sama tànk bii sama ñaari dëgg yi teg naa ko ñu dox ko wali bu mu mën a doon Seydi Mouhamadul Xaali kat bàyyiwu ko noona nun sunu tariixa lu ci waaye waxte xamoo ko ku nekk sañ na la koo laaj Seydi Ahmed Tidiane mu ne koy waaw dangaa màndi wala dangaa lan maanaam màndi ci leer la ko bëgg a wax ndax nit yàlla yi léeg-léeg ñu dem ci leer yi ba wax yoo xam ne yi bu ñu fa jógee soo leen ko waxee ñu génn ci mooy ñi nga xam ne dañuy dem ba yàgg ñu naan subhaani yi tudd naa sama sell te loolu yàllaa ko war a wax wala ñu naan maay melaxal melax yi di dëndul dënd yi ni Seydina Ali waxoon ana mu bari xut bu ruuxi mu raxu ruuxut wala boog ñenn nit yàlla yi daal bu ñu bu ñu wala ñu wax wax yi nu yonent bi fekk dañuy fekk ñu jeex ci leeru yon yàlla ba jeex ca tàkk su ko jëfee jamono bi waxee nu yàlla la ñuy waxee waaye bu leer a jeexee nag soo leen ko waxee du duut ñu nangu loolu wala ñu dikk ci leeru yonent bi ba see ci leer yonent boobu baa boobaa lama ñu yonent bi la ñuy waxe moo na am na ci saytaane yi de bu saytaane dugg seeram ba foog la waxinu saytaane ngay wax waaye bu bu bu bu bu saytaane gi génnee nga daal di nga daal di say génn maay lekk di wëg maay seeñu bopp di wëg nangam nangam ñi di la tam te fekk na xaajoo ko wax saytaane doon nga dugg mooy dugg naan mooy lekk nit ñi Seydi Mouhamadou Xaali nag ba mu ko waxee loolu mu ne ko déedéet mandiwuma ci benn leete maa ngi sama xel mu mat alhamdulilahi dama ko wax ngir sant yàlla mu ne ko waaw Seydi Abdou Xaali Jilaani waxoon na lii mu ne ko waaw Seydi Abdou Xaali Jilaani waxoon na ko te waxoon na dëgg itam noona sama tànk bi teg naa ko ci bépp doq waliyu keroog ba mu ko waxee moom Abdou Xaali Jilaani fu waliyu nekk daal sëgal nga sa loos ngir torox lu waxam boobu mu ne ko loolu day wax na dëgg waaye waliyu jamonoom dong la ci jublu man Seydi Ahmed Tidiane dama wax ni xaddamaaya haataani ala raqabati kulli wali lillahi taala min al azal ila al abad min ladun aadama ila an nufiqa fi suur man damaa wax ni sama ñaari tànk mi ngi ci toog ko mboolem waliyu woo xam ne wii nitu yàlla nga la ko dale ci aadama ba kere àdduna yi tukki loolu de ba mu ko waxee mu ne ko waaw taxul ba ko noonu suñu Mouhamadou Xaali ne ko waaw waaye yow da ngaa defal ni yàlla lott na ci biir ku la gën fopp jox ko mayu mu la mayu te loolu yàlla ko waral.
mu ni ko bu la gënoon
xam naa ni yoon yàlla lott ji ndax yàlla dafa lott ci gën bind ko gën Muhammad fop jox ko lu mu joxul Muhammad mu ni ko yàlla lott ci waaye ba mu doon namm nammeel yi loola boo dafa bokk ci li yàlla nammul woon mu ni ko saalika yàlla itam fa mu doon namm nammeel yi dembatul bind ku ma martaban si dafa ci yàlla mu ni ko waaw su ko beneen wàll yi waxee sa ginnaaw nag xanaa bu doon dii nga doog ne kon kon fiil dañ dëpp gi mu ne ko benn wàll yi du ko wax sama ginnaaw ndax wàll yu ko wax fen te wàll yi du fen mu kon nag Seydi Ahmad Tijaan nii la nekkee woon ak i taalibeem lu mu wax laaj nañu ko te bu mu jógee taxaw boo demee ci jawaayul maani am na fa lu ëpp nangami fukki fukki laaj yoo xam ne ci alxuraan ak hadiis ak xam-xami yàlla yépp laaj nañu ko bu ci ne faram fàccee na ko kon nag te Seydi Ahmad Tijaan da daan toog fii di jàngale soo fii di werd masala yi dox fii ñii ñaan werd ne fii ñi yépp mu di ko doxal dox ci benn waxtu kon nag sëriñ buy bañ ko la laaj da ngaa jàngul rek diine ji nag diine yi laaj la tarixa bi tarixa bi laaj la fuy waay nekk lu waay laaj ci bëgg na ci tarixa bi sañ na la koo laaj soo ko xamee wax ko soo ko xamul ni ko xaw ma ko ah, te bokkoon na ci santi mu xadda bi tam bala ñoo defal ijaasa kenn war naa dem ba xam fardu ay ni ci tarixa bi ak sharia bi ba nga xam ne ñi ngi waay werd lu ñu ko laaj mu mën ko wax waaye mënoo nekk mu xaddam te ñi nga may werd mënoo leen a wax dara ci tarixa bi nag ndaxam sax am na nit yàlla yoo xam ne xëy na njànguñu te am fatu nag waaye nag li gën a bari yàlla def leen di defal furxaan furxaan mooy lan yàlla nee na ku ragal yàlla ma defal la furxaan furxaan benn rido lay doon boo xam ne bii day nekk ci kanam nit yàlla ki nga xam ne dafa am fatu suñu ko laajee masala mu musul jàng fenn xamu ko masala bi